Cheikh Super jamono ngongu école de lutte Mor Fadam Maam Mor les Tigres école de lutte Mbaye Gueye ndaysaan ñoom ñaara ngongu taxaw xam nga ñaar ñi seen combat rek dafa doy grand combat gars yi jël leen image combat bi combat bu nar a la waaw waaw déet déet déet déet déet Maam Mor Maam Mor déet li bokku ci déedéet non Cheikh bàyyi non non non ah, waa leen Maam Mor déedéet déedéet déedéet déedéet non non seex non bu leen dem ci géew bi déedéet. non tey leen tey du foofu du géew bi lamb ji géew ba yeggaguñ fa. combat ambilaay la mënta sedd de maam Mor a jiite ambilaay ànd ak ñoom Mor Diouf waa Petersen man de drapeau waa Petersen bii. waa Petersen nag Petersen daa bëri coow xam nga Petersen boo fa jaaree jëndal morsa ñaata moo lay bëgg a moo tax xam naa combat bi na ramit maam moor seex teey lamb ji du fii Iba Mar ngeen di bëree teey lamb jotagul ndeysaan seex taxawal taxaw leen nii na ku ne taxaw na ku ne taxaw benn côté rek taxaw leen rek gars yi c'est que nag xam nga tur na day wuyu borom xaadim parce que xam nga la moo tax drapeau marsa ambulant yi nekk Petersen la te xam nga ambulant man man ab ambulant la fi ma gis nii yokkal ma jaay la coow la day mel ni tulleeg màlle kenn du dégg xam nga boo jaaree Petersen ana ñu ñoom waa Petersen kaay leen. kaay leen. kaay leen kaay leen. Mam Mor. seen Petersen kaay leen wàcc leen. kaay leen. Mor Diouf. seen yaram bu tàngee nañ ko sel ba bés ba rek. Cheikh Super Jamono ak Mam moor doomu Faas. Cheikh tey yaram bi seen yaram daa teel a de. ndeysaan. cey ji làmb. drapeau waa Petersen la cey bi combat drapeau waa Petersen la cey loolu mi cuuk raay na de Mamor mi Mamor lu mu añe ah waaye yiw man day maa ngi bëgg a jaaxle mais dafa am koo xam ne faaw ma woo ko ah ki nga xam ne nii moom mooy Abdoulaye Dembélé parce que Dembélé dama koy gis muy dafa am solo Dembélé kaay Dembélé Dembélé la tout puissant kaay rek affaire la kaay Dembélé kaay wax ma ci combat bi Dembélé mënoo fene ñu bañ laa woo Dembélé sunu doyen nga kaay xama bi bii combat daa nar a metti dembele kaay. Abdoulaye Dembélé kaay Dembélé faw nga ñëw non day gaaw waaye faw ñu jox ko tuuti taa xam nga jamay kee daa bëri coow moom ci boppam rek histoire la moo tax lu mu tëgg mu bari coow ñu ne déet na ñu jël waa Petersen pël rafet yaag Fadel seen taxawaay bi ne neexuma Dembélé kaay Dembélé teel microbi bi Dembélé maa ngi lay ziar wala ma teel la di la ñaanal jàmm di ko saaku ci yow Dembélé defe naa tey bés bii jamay kee jëm la 21 novembre boo amoon moo boo ciy wax kaddu goo ciy wax lan lay doon. waa euh, les américains vraiment di ko di ko féliciter. parce que promoteur la bi nga xamante ne daal vraiment yàggul ci làmb ji. mais li mu def si ay actes. day mel ni def na dix ans quinze ans ci làmb. di ko jaajëfal di ko féliciter si li nga xamante ne vraiment mu ngi koy def si si làmb en tant que ndaw la. Euh, baa bi ñaari mbëri samay xarit lañu. lu tax nekk sama xarit. parce que dañoo fonk entrainement mhm. dañoo am mbooloo dañoo représenté seeni gox. dëgg la donc comme baala bi nga xamante ne. Mhm. yaakaar naa ni dina neex. di mhm. ñuy wane nii face à face. Euh, bataille psychologique la rek. waaw waaw il faut ñu nappante. parce que kenn ku nekk xam na ni sa morom ñemee na la. xam na ni sa morom. amul dara lu mu ragal ci yow. donc il faut nga ñeem jéem ko. Euh, euh, euh, peese yooyu peese yooyu noonu. pour que lamb ji nga mën a xam fan lay fan ngee jaan donc di ah. leen féliciter. Ah. si loolu. parce que ah. affaire de fair play la. du ñu laalante mukk mhm. dañu doon nappante mais duñu laalante parce que loolu xam nañ ni seen jéem ngi fi donc Abou njaase aussi. Pam Ndoy mhm. combat bu doy waar. combat ñaari mbër yi nga xamante ni vraiment. Mhm. Euh, dañoo am place ci làmb. Mhm. te combat bi lañ ko war a wone. Mhm. te gëm naa ni combat bi dinañ wone li nga xamante ni amateur lañ doon xaar ci ñoom. merci beaucoup. am na solo koo koy Dembélé c'est que boo gisee ñu woo ko xam lan moo tax Lamine Dembélé dafa yàgg ci làmb macha allah di bind lu am solo. di suñu confrère nekk ci presse écrite bi mënoon nañu woo suñu gaa yële nga xam ne ñun ñoo bokk lu ñuy def muy ñoom Fadel ñoom Pël ba ci ñoom jiili ah parce que ñoom sax dinaa leen woo si grand combat bi faw ma woo kenn ci ñoom mu ñëw joxe ci kàddoom parce que tamit loolu mi mooy li war a am yaa ngi dégg waaye Cheikh Cheikh maa ngi lay ziar. bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di santaat samay ñaari waajur di nuyu presse bi fi toog yëpp xam na tey jii ñun ñoo leen fi bàyyi. di nuyu sama ménageur per Djili maa ngi koy nuyu bu baax baax baax. waaw di nuyu aussi sama papa Prési Paté. waaw di ñaanal sama papa Mor Fadam fa mu nekk gënal ko fi mu jógee. ak mbooloom ñu fa fekk. di nuyu Jamaïcain ak euh, Mor bu parcelle. ak Xaadim Anta Seck mi nga xam ne tey jii. Mhm. ñoo taxawal combat bi. Mhm. di nuyu aussi. ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne Petersen bii nii. waaw falaa juddoo falaa màggee falaa yaroo. Petersen drapeau bi sama drapeau la si kattanu yàlla suñu borom. kii li muy def nii. Hmm. yàkkamti la rek. mais dimanche soreetul si kattanu yàlla suñu borom Mamor du ma daan. mënu laa daan. Mamor laa la wax si kattanu yàlla suñu borom Mamor du ma daan. Mamor bu Fass dama koy daan incha allah. foo teg du la daan. déggoo ma de. combat bii nii ku gën a liggéey. ku gën a sérieux. yaa may dégg. ku gën a entraîné. yal na ko yàlla may ndam. ci biir combat. combat bi ku gën a sérieux ku gën a entraîné. yaa may dégg yal na ko yàlla may ndam laa la wax. Mamor bu Fass bu neexee yàlla suñu borom naa ko duma ba pare doo koy daan. li muy def yëngu-yëngoom yi jaaxalul la yëngu. yii yii ko def kii simbkat la. Ah. man damaa nekk mbër kaamin am si lu ma jugee. combat bi dama war a ñëw wane sama bopp ñu xam kan mooy Cheikh Super Jamono. xam na yoo xam ne du wax. day simb daal ko man jëf moo ma war waaw. kii li muy def nii yàgg na ko def simb kat la li ma koy wax mooy bu arbitre sifflé bu mu nekk di def affaire simb yooyu aw gauche aw droite la taxaw dëjal boppam. xam naa fi mu jëm. mais fu mu jëm fan la jëm. samay tànk la jëm danaa la gos droite ñëw say tànk te bu ñëwee dina julli te heure julli bi du jot man maa la ko wax. déet waay ma. maa ngi lay dégg bu baax dama bëgg mu ñëw jël si tànk yi. waaw waaw. mu mel ni géej waay taay dañu ne ci dynamique de victoire bu doy waar waaw loolu sant yàlla la ni ngeen ubbee saison bi nga war a wàccaat le 21 novembre war a jàkkaarloog Mame Mor loolu sant yàlla la moo war a gënal tey may rey sama bopp su ma doon def benn fukk laay def kii man ak moom moo ma mag kii lu mun benn rek mën naa ko fukk te ah. xale la mag déggoo ma kii ba muy bëre ak samay grand ñoo doon bëreendoo man xale laa 94 laa yokkuma wàññiwu ma incha allah le 21 si kattanu yàlla laa koy wane man xale laa te man ak moom duñ benn Xaadim Seck loolu leer na man de yaat ma sene niw si micro bonem bii ay yaat ma yaat ma dee ko defar dugalal fii mu jaaxal na maam moo rangi nii pël bu rafet luy problème am wax na dëgg xaadim li mu la dëgg la moom te ëppal lu mu la wax bàyyi ko xel caméra yi lay bañ nga baare leen maam man maa ngi lay ziar auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant samu ñaari waajur di ñaanal sam fu mu tëdd yàlla na ko gënal fii di ñaanal sam papa Mbaye Gueye Tigre de Fass yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moo def suñu ngor jom fulla fayda fit jàmbaar jàngal ñu bëre si loxoom di nuyu sam père Ibrahima bu baax a baax a baax Fass Mbao ragal dëkk fa man maay sama caatu yaay cinq ngi daanu ma sama yaay baana baana la day jaay mm. su ma ñëwee si ay góor ku ñu taje damay wane sama bopp man jàmbaar laa mbëru dëkk laa dëkk ñoo topp sama ginnaaw. Fass Mbao man lañ yaakaar maa ngi tàllal samay loxo monsieur le maire mu ñëw jàppale ma si combat bi jënd ma ay bloc kii jarul wax ji di bari. simb bi mu la jàppee simb kat nga. jarul wax ji di bari dama koy daan si kattanu yàlla ak mbaaxam. si barke mais neex naa daan. li jëntiwu moo si ay defet la jóge nu mu jógee ciy defet. kii gëj na daan ñëw na fii nii war a bëreeg moo ricargo jam boppam ñu bu ma ko mu daanu dem na Ibamar ñu bu ma ko mu daanu man cinq ans daanu stade bi maa ko ibbi maa fi njëkk a bëre combat spécial damaa sonn si combat spécial yi xam la laa leen bëgg a xamal. Mor Kankang sama combat ak moom nan lañ ko taxawal kii maa ngi moom du combat kii daan naa ko ba pare. Mor Kankang mën na. kii parewul démb si meeku nañ maa ngi moom li TV yaram bi baaxul. Ah. amul physique dama koy duma daan ko ma Paul bu daaru fii nii yéen ñëpp fekkee ngeen conseil laa bëree mais man du ma xaar mbër. li mu wax loolu laay def bu arbitre nee dama koy dóor dal si tànk yi. nee na Petersen la juddoo loolu man ay drapeau lijjantiw ma ko victoire nañu yëkkati sama loxo moom ak waa Amilan ñoom la kii dama koy duma daan ko si tànkam yooyu fa jëm li may def mooy woote diaspora bi woo mafia bi woo nante yi woo waa Seras woo waa Fora ñu ñëw jàpp si combat bi ñi jënd billet yi jënd billet loolu ngeen may defal ma taxaw jël sama temps woote mais kii du ma ak moom maag Mor Kang mooy combat bi. boo leen bëggee dégg-dégg kii du ma moom. da ngaa jéggeegut fii bay wax waxi moom. kii dama koy duma daan ko yéen xanaa xamatoo leen ma wala ah, boog. ah kay seetaan nañ la. Mbaye Gueye Tigre waaw. combat bi moom laa koy bëreel ku ko xam-xam ni jàmbaar la si jàmbaar lañ ko xam combat bi loolu laay wane. Gris ma duma ko daan ko amuma lenn lu ma siy sikki saaka di woo waa Fass mbaa waa Mandela di woo sam papa Modou Khoule. waaw père Modou Fall Ndiaye borom Brescia maa ngi woo Asou Mbène combat bi laa ko tuddee di woo waa Fass Mbao nante waa Thiaw Saxiir ñëpp maa ngi leen woo di woo ñoom Ada Kawas booy ñoom Caca waa Yaawi waa Bango booy yëpp maa ngi leen woo xale góor ak jigéen mag ndaw kii du ma daan munu maa daan fi ma jaar jaaru fa dama koo dimbali barke Seydina Muhammad waruma bëre kii ñi ma daan kii munu leen daan di woo Pape Gueye di ko wax ko bi mu ñëw jàpp si di woo Mame Gor Diazaka man maay gàdd rapproché fu mu jëm si àdduna ma lay yóbbu. bërki démb laa wàcc si avion yi kii du yéeg avion. barki Serigne Bamba kii dof la kii dof du yéeg avion. non avion nag moom. kuy maam Gor Diazaka maa ngi koy woo. am visa yéeg mu ñëw jàpp si combat bi jënd billet billet dafa seer te Dakar la ñu bëree. oto aller retour day day métti. maam Gor Diazaka maa lay woo. avion foo jëmoon Gambie wala fan. dem naa yéeg naa si avion yi wàcc naa. dem fan lijjantiwu ma loolu. déet du ma ko wax mu may xamal. barki Serigne Touba yéeg naa si avion yi wàcc. kii dama ko ëpp jàppale. li woo Pape Gueye di woo Xuudu Saw di woo Mosulay di woo Baba Ndiaye jeune transitaire man ñi may jàppale dañoo am xaalis. di woo Baba Ndiaye di la wax si combat bi sa combat la nga ñëw jàpp si. am na solo di woo waa Seera sam père sam papa Zora Mbaye maa ngay woo si combat bu baax a baax a baax. père man musuma am combat nit jëndal ma bologu billet man maay liggéey sam xaalis di ko jëndee ay billet di ko may booy. combat bi damaa bëgg ñu jàpp si ñu jàpp si bu baax a baax a baax Xuudu Saw jàppal si combat Mosulay grand Daour ja maa ngi lay woo bu baax a baax a baax Ahmed Gueye di woo Abdou Sène rakku Assane Mboup xaalis bu bari la ma yónnee di ko sant bu baax di ko gërëm di woo Abdou Sène bi nga xamante ne ni pièce détachée lay jaay moom tamit di woo Ndiaga 221 pneumatique di woo Jelaani Ousseynou ak Assane Ousubane Kara doole sama doomu nday gàllem laa nekkoon fa doon paree combat bi ak Unca dof bi ñoom Boy Sey 2 ñoom saa bokkal ñooñu laa doon kontaagal kii mënu ma yëngal. Hmm. du ma fi nekk sax di waat combat bi nii dama koy jàpp duma ko daan. mais bés boobu li ma si jaaxal boo xoolee combat boobu yow faas nga ne les Tigres Fass la Pape Ndoye nekk Fass Ndakaaru. mu mel ni bés boobu kon ñaari grand kombaa yëpp Fass la. man deretu Fass mooy daw sama yaram barki sëriñ Bamba lamb ji dama koy bëre si turu Mbaye Gueye si jomam si fulaama ak si faydaam du fi ñëw sax di bàqu ay rabi ca cabax gin Fass bu dëgër laay def sotteeku sama soow taxaw si di géew bi xaar ko. kii maa gën a nekk jàmbaar maa gën a nekk bandi maa gën a wuyu maa ko ëpp jàppale maa ko dàq bëre maa ngi woo àdduna ñu ñëw taxawuma sama combat jàpp si ma daan kii maag Mor Kankang nañ ko taxawal lii du làmb. yaag yaag Mor. maag Mor Kankang. am na solo léegi xaaral ma ñëw ci waa Petersen Xaadim Seck defe naa ñiy taxaw ñoom. nañ woote. jërëjëf Massa Massa may leen ma tuuti waaye ñu woote taxawal ma woote. lamb ji bi dafa seer damay woote heure maa ngi woo Vémas borom centenaire borom dàll yeeg saag mu ñëw jàpp si barki Serigne diwoo di woo ñànku borom pièces détachées yi di woo Ndiaga 221 di woo Abdou jeune transitaire di woo sam papa Modou Laman di woo papa Cissé borom marché Kermer di woo père Modou bàyyi na ma ñit ñi jàppale jëndal ma billet yi man loolu rek laay jooy. am na solo man na ma gars yi jëndal bi mosuñu ma jëndal billet nañ ma jëndal billet si combat bii nii ma jàpp ki daan ko. am na solo ba la ko mu woote. Cheikh Kaay ñu tëjee foofu. Cheikh Kaay nii. waxal billet amateur 3000 kay jaadun. non man billet lu mu nekk garaawul ko man damay woo ñi nga xam ne ñoo may jàppale si combat bi. waxal woote yaa dégg maa ngi woo sant. saraxule yi nekk Sandaga yëpp maa ngi leen di woo di woo tamit waa Petersen waa Alkayda yaa may dégg maa ngi woo Youssoufa Touré la la lumière du Sénégal daf may jàppale ay cinq bolok la may jëndal Youssou saraxule maa ngi lay woo si combat bi nga jàpp si ak Omar maa ngi woo Sakho bu Balla Gaye 2 mu ñëw jàpp si combat bi baax a baax a baax di woo Modou Faye Modou Faye maa ngi lay woo nga jàpp si billet yi ma xaalis soxla ma dara jëndal leen ma ay billet di woo Adama Marème mu ñëw jàpp si billet yi yaa may dégg bépp autorité bu nekk Guédiawaye maa ngi woo nga jàpp si Ana Gomis maa ngi lay woo nga jàpp si di woo Fallou jaaykatu yàpp Massa Ndiarème di woo waa itali ku si mel ni super jamono sama turandoo maa ngi koy woo mu jàpp si bu baax a baax ak Kaana Papi maa ngi koy woo mu jàpp si billet yi di woo Tata Oumi Italie maa ngi koy woo Tata Oumi maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi di woo Bouba Italie ngi koy woo mu jàpp si combat bi yaa may dégg di nuyu tamit sama ménageur père Djili day sonn suñu ak sama papa prési bépp autorité bu nekk Géejawaay maa ngi lay woo kii euh, Mouhamed Mouhamed sek maa ngi lay woo si combat bi nga jàpp si bu baax a baax a baax sama gars yi aw ma seen fay ñoom góor yi aw ma seen fay di wax nag maire Marseille nañ ñu xaar ak taalibe ñëpp seen fikki dërëm seen dërëm yi moom mooy daan Mamor waaw kii bu taxaw leen photo photo non nañu photo wu rek lañ leen sant nag photo kese bu kenn laal sa morom photo non bul dóor kenn Mamor déedéet déedéet Mamor Mamor Mamor woyu ma Mamor Mamor woyu ma waaw baax na baax na dem leen toog dem leen toog waaw dem leen toog dem leen toog